am solo la euh, di ñaanal kilifa diine yi ci réew mi yëpp di ñaanal sénégalais yëpp yi nekk si biir réew mi ak si bitim réew di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachir sunu borom euh, yàggal ko fi wéral ko di ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour euh, di ñaanal kilifa diine yëpp yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi sunu borom dafa leen jàmm bàyyi leen fi ndax ñoom seen présence présence la boo xam dafay rassurer li nga xam moom mooy sénégalais ak yi. nit ñi adhésion bi bari lan nga lebal yi. sénégalais yi moom mënu ma leen a fay. mënuma leen a fay maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax euh, sunu yéene rek la ñu am te yéene yàgg naa dugal borom yéene boobu nag moom moo ñu dugal ci lii fa ñu nekkoon yéene moo ñu fa bàyyi woon fii ñu nekk te yéene moo ñu ci dugal yéene nag ak itte dañoo xamul soxla boo xamante ni ci kaw suuf xaj na ci loolu moo tax ñun li ñuy ñaan sénégalais yi ak sénégalaises yëpp mooy ñu gën a am itte ci dimbalante ñu gën a am itte ci bennoo ndax euh, ba ci Cheikh Ahmad Bamba contrat moral bi nga xam moom la amoon ak yonent bi salaatu wasalaam bi mu ko feeñoo loolu la loolu la waxanteeg moom rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi bi dars faqat himma boobu moom mooy volonté volonté nag ci lu mu am volonté politique sax la ñuy wax volonté ci lu mu am loola day taw tawféex moom moo ci am donc bu ñu àndee jàppoo jàppante jàppalante ci dëgg sunu borom dinañu defal loo xamante ni loolu moo kawee sunu jot donc je pense que ne loolu sénégalais yi daal wax dëgg yàlla man cant laa leen ameel ak ngërëm cant bu baax ak ngërëm bu baax di leen ñaan tamit ñu gunge ñu ba li ñu bëgg ñu am ko su ñu ko amee it ñu ñaanal ñu ba ñu delloo ko pour euh, l'intérêt exclusif des Sénégalais incha allah. waaw sa gis-gis ak sa taxawaay ci réew mi ak vision bi lan la ak fan nga jëm ak fan nga bëgg a yóbbu réew mi ci li ngay laaj. xam nga réew mi moom soo ko bëggee am ci yéene ndono la ndax da ngaa ñëw ci réew moo xamante da nga fay fekk ñoo xam ay jàmbaar lañu woon. Euh, imaam wax na ko léegi tudd Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, ci ite joo xamante ni amoon na ko ngir réew mi sunu borom def fi taw tawféex keroog ba mu liggéeyee lay yonent bi salaatu wa salaam liggéey bu rëy boobu ak sunu borom si Gabon bi muy ñibbisi ba ñibbisi jotee ijjaxal rujjoo yi ilaa xaw mii la wax saxan detana wal tak fi naa yow ma jam xil xalqi niiraana donc mooy li nga xamante ni amee naa ko ci tukki bi dama lay maa ngi ñaan nag dem bokk ko ak ñi nga xamante ni mooy suma askan ñun nag sunu astuut ci xam-xam sunu temps sunu énergie sunu itte dañ koo bëgg bokk ak sénégalais yi yéene moo ñu mës teg fépp fu ñu mës a egg fépp fu ñu mën a nekk fii ñu nekk tamit tey jii yéene ju mat sëkk lañ ci ànd ak itte ju mat sëkk nag lañ ci ànd fooye wuñu ko caaxaane wuñu ko dañ ciy fas yéene liggéeyal sunu borom liggéeyal ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam liggéeyal ci Cheikh Ahmadou Bamba liggéeyal ci magu réew mi yëpp muy pàkk bu doy waar ku ne xam galgal yi ci nekk ak gàllankoor yeeg ak galgal yeeg kalante ndax pare nga pour affronter loolu sant sunu borom bu baax a baax a baax ndax ceux qui vivent sont ceux qui luttent àdduna lépp xeex la àdduna lépp euh, taxawaay la àdduna lépp ite la ku nekk nag da ngay nekk ci li nga war a nekk ku mucc suba ba ngoon jot sunu borom moom moo la musal waaye yéene ak yitte ju mag ak euh, yéene nit ñi jàmm ak yéene sénégalais yi jàmm sunu borom moo ñu wërsëgal ñu bëgg Sénégal bëgg sénégalais yi loolu wërsëg bu ñu sunu borom defal la ñu ko ci sant bu baax di ko ci. amiin yaa rabbi ah fi mu ne nii nag moom làmb ji am na gan. <laughs> jërëjëf mbokk yi.